Afrique la war ba dem Guinée ci réew mi foofi dem fu ne xam nanu Cheikh Ahmadou Touré loo doonu doon ab taalibe asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu euh, Tawfekh euh, Production mel na ni ñu ngi fii ci kër Serigne Ahmadou Touré mu baax mi nga xam ni tabaarakallahu ñu ngi nii di waaj ngir Euh, jëm ca ngan gu mag gi nga xam ni moom lay gane ji fële njaboot gi gis ngeen tabarakallahu yaayam ju baax ji di ñaan euh, ngir ñaanal ko yoon wi ñu àgg ci jàmm ñëwaat ci jàmm mu ngi noonu tabarakallahu kon ñu ngi déparé fii ci mari si jëm incha allahu rabbi Touba Toul euh, fekk ci njabootam foofe muy ngan goo xam ni ñoom ñëpp ñu ngi koy teeru di ko waajal incha allah kon nag ñu ñëpp ñu àndandoo nag dugg ci oto yi ah ànd ak nag sunu muxaddam bu mag bii di sëñ Ahmadou Touré ngir jëm nag Touba Tour Europe Italie ak France xam nanu Ahmadou Touré am na ngërëm ci waajuram daa toppi woon ay ndigalam moo tax mu am cër bi mu am jaajëfe Ahmadou Touré jàkka yi xam nan waajuram jumaa yi xam nan waa juróom yàlla ak yoneen ba la gëm alxaaji Boubacar Touré jàkka yi xam nañ waa juróom jumaa wala sang Amadou Touré di jëlbaati sang imam Amadou dañ ko interview ah, kon nag imam sama sang ah. sama sang sama nijaay instant ne dafa nangu sama nijaay Mamadou Touré mais nag Mamadou Touré mooy sama sama nijaay bu mag bi maa koy ñaanal yoon bi mu départ yàlla na ko def yoon yi jàmm yàlla na ko def yàlla def yoonu diine yàlla na ko bay def ni yeneen yi yu bu réy yu raw yi te il faut mu am ko ndax macha allah xale bi dafa baax dafa fonk ay magam dafa respecté ay magam dafa fonk ay waajuram ah kuy sa yaay ku kuy sa baay Bouba Touré kuy sa yaay Mayram Sall jooy na tam kii mooy ki nga xamante ne soo duggoon Saalum maamam daara bi da ngay saxaar bi ci kaw soo duggoon Kaolack da ngay seen saxaar daara maamam bi muy muy saxaar ci kaw kon nag lii su ko amul dinañu jaaxal lool te dina am leneen tamit lu raw ñu koy ñaanal fukki fan ak wér gu yaram yàlla barkeel njabootam gi yàlla bàyyi ko fi am na bañu fi ñu jaaxle woon lool mais suñ gëstoo gis ko rek fàtte lépp min kulli xalqin salaamun di fa xalqi lillahi toola layaali min kulli xalqin salaamun في انتقال في الكون بعد انتقاله وعليكم من كل قال

مصطفى قلبه ووقاه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 tabarakallahu sëriñ Amadou ture ak ñi nga xam ni ñoom la noo baaxoo àndal ñoom ñëpp tabarakallahu ñëw nañu ñu ngi nii tabbi ci kër gi nga xam ni fi koy ganale moom njabootu tabarakallahu euh, sëriñ Boubacar Touré gi yëpp ñoom ñëpp ñu ngi nii ànd ak tabarakallahu mbokk yi xarit yi yi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 bismillahi irrahmani irrahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi irrahmani irrahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi irrahmani irrahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi rahmani rahim qul auudu bi rabbil falaq min charri ma xalaq wa min charri gaasiqin ida waqab wa min charri naffaasaati fi luqad wa min charri xaasidin ida xasad bismillahi rahmani rahim qul acuudu bi rabbi nnaas maliki nnaas ilaahi nnaas min charri lwaswaasi alxannaas الذي يوسوس في صدور ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا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 dafay bàyyi ko ci ku baax ci ku tëdd muy mag ci sëriñ Ahmadou Touré mi toog te waral tabaarakallahu jotaay bu mag bii nga xam ni tey ji ñëw na ci dëkk bu tedd bi di Touba tul di dëkk boo xam ni yaakaar naa ni ci kanam tuuti dana nu leeral ndax dëkk histoire la kon nag ñu ñëpp ñu maase ko déglu. Ceerno Ousmane ne mu ngi dellu di sant yàlla ne mu ngi julli ci sayduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne mu ngi sant borom kër gi muy papay Seydina Omar mu toog ni ak mbooleem mbokkam yi mu fi fekk yëpp Ceerno Ousmane ne ñu ngi leen di sant di leen gërëm nee na Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla ne ya Mustafa génnal Makka nee na bëggu ko woon de ndax dëgg dëkk boobee di Makka moom yonent bi da ko bëggoon ci xolam yàlla ni ko yow Moustapha na nga dem fi ma bëgg mënul bañ yonent bi mun a bañ nee mu daldi di dem waaye bi ko waa Madina teeroo nee waaye bi ko waa Madina teeroo ah, Madina gënal na ko Makka waay waay sallallahu alayhi wa sallam Madina gënal na ko Makka cofeelam ci Madina nee na cofeelam ci Madina foofu la commencé nee foofee commencé moo tax ñoom it dey xamuñu woon Touba Toul. nee ñoom xamuñu woon Touba Toul. musuñu fi ñëw. nee musuñoo ñëw Touba Toul. waaye tey. waaye tey. xam nañu Touba jii nag xam nañu Touba Toul. suñuy xol. suñuy xol. suñuy cofeel. suñu cofeel. suñu mbëggeel. mu ngi ci Touba tey. macha allah. Thierno Ousmane ne macha allah. ñu nee ñu ngi sant yàlla bu baax. loo gis rek dafay am sabab ne sabab bi mooy Seydina Omar waay waay moom moo waral jotaay bi ne mu ànd ak jëmm ju tedd ji toog di imam Amadou ne ñu xamante lu tolloog fukki at ak léegi nee na dara lu ñaaw mu sa dox si seen diggante ñoom ñaar ne lu rafet rek rafetaay boobu tabaarakallaahu moo jur lii tey waay waay Thierno Ousmane ne ñu ñëw gunge nag imaam Ahmadou Touré ndax moom yëfam Thierno ne yëfi yëfi imaam Ahmadou nee na yëfam la keroog daf wax ma na keroog daf ko woo wax ko ko. mu ne nga préparé. mu ni ko Thierno Ousmane préparel. bés bii bés bu rëy la. waaye bis bii fa seeni jóg jëm Touba tul bis bu rëy la de. ma ne ko ah loolu kay jarul préparation. waay waay Thierno nu ki imam loolu jarul préparation. bu ma nekkoon ci yoon sax. dama nekkoon ci yoon. di dem. di dem. sama soxla samay soxla bopp nga woote ci saasi nga woote ci saasi Thierno ne dafay dëpp ngir ñëw ànd ak yow ci sa bëgg-bëgg ne li ma programmé woon yëpp waaye waay Thierno nee na annulé na ko nee na lii tey jii moo gën a nekk farat ñëw nañu nag ànd ak une forte délégation waay waay tabaarakallahu liste baa ngi nii waaye ñoom ñëpp ñëw nañu bu fekkee ni danoo dañuy lim dañuy juum waaye imaam Ahmad kenn mënu ko bañal dara lu mu am rek xolam moo ko ko may dañ doon wut ku baax dañ doon wut ku baax pour ànd ak moom pour ànd ak moom pour moom ba tase ak Seydina Omar nee ba dajeeg Seydina Omar nee ñu jàpp ci loxoom nu ñu ko yee eh, yow la nu doon wër gis nañu la kaay nag ñu taf la ci suñu wet nee moom it mu jóge fi bàyyi fi ay mbokkam dem di wuti di wut ñu baax nee ba dajeeg imaam Ahmad waay waay mu nu ko imaam Ahmad yow laa doon wër gis naa la. jàpp naa la ne nanu ànd nag ngir yàlla rek te yàlla tax nee nanu ànd rek te yàlla tax ne bu yàlla taxee ngeen ànd nee wax na ko ci xadiisul kursi yu nee na ñaari nit ñaari nit ñu ànd ngir yàlla ñu ànd ngir yàlla man yàlla man yàlla maa leen di ñetteel ngi di sant di leen gërëm di ñaanal yàlla tertu bii de. ne tertu bii. yàlla na nekk. yàlla na nekk. sabab sabab. nee teertu. bu ñuy yàlla di teertu bu ñuy yàlla di teertu. ëllëg bu ñu taxawee ci kanamam. min ya rabbal alamin. waay waay fii tey. luñ fi ñaan luñ fi ñaan. ah ca Ousmane ne yàlla nangu. naa lu tax mu nee xam na lu tax mu wax loolu. parce que ñoom ne ñoom mosunoo ñëw Touba Toul de nee nañu dëkk boo mosut ñëw mu soo faa mooy yàlla waay waay loo fa ñaan yàlla nangu ko eh Ceerno Ousmane waay waay eh Ceerno Ousmane tegu ko tegu ko tegu ko fenn lu dul ci wax ji fii rek la ko teg allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim waay waay bu nu añee ba noppi ba wàcc suuf ba jigéen ñi dëkkandoo yi toog xarit yi toog Thierno Ahmadou dana wàcc ak Thierno Ousmane ak ñi mu àndal ñëpp kaddu yi nga xam ni bëgg nañ koo sànnante des na ko sànnante wax leen kan mooy Thierno Ahmadou ak ñi mu àndal ak dëkk bii mu ñëw nga xam ni mooy Touba tul di dëkk boo xam ni dëkku Seex Anta la waaye waaye bis bu nu wàccee ci suuf lépp dana leer ba nu xam ni kii ñëw tey jii sëtub soxna jaara la waaye sëtub Serigne Touba la waaye waaye wax ji.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 waa ji taala ngom nii taxaw Modou Ngom la bàyyee mu tudd Géyte Gayen Amar ak Mbar Sombe di taalibeb Anta yaakaar Serigne Mam Moor Serigne Mam Moor Serigne Abdou Khafour Serigne Abdou Khafour Serigne Modou Mamoun Mamoun buri kandi Ibrahima wañ ak Serigne Bakke Maram ki boole Seex ak Seef Serigne Omar ko duppee kor ñu ñaaw ñi ajaratu may jooba nga nee ajaratu nday njaaya nga ca wetam waa kër sëriñ Omar waa kër sëriñ Abdou Khafoor kenn desut délégation sëriñ Maam Moor ak Cheikh Amidou Mbacké ngi ci kaw Sidi Anta Ndiaye Mbacké ak Afi Anta Ndiaye Mbacké Anta Ndiaye Kani Ibrahima Wañang sëriñ Mbacké Maram sëriñ Omar lañ ko duppee Cheikh Abdou Khafoor mu rafet maay baayam waaye eh, Cheikh Modou Mamoun la baay Amar Mbàkke sëriñ Bamba daa dugg ci géej gi def ca juróom-ñaari juróom-ñaari weer juróom-ñaari saa juróom-ñaari waxtu ba mu génnee Seex Anta sama rakk ja rek may ganale Seex Anta ku jàng ngan ci moom nga ko jànge mu ganalee Daaru Salaam rey na luy dox rey na luy naaw ba tër nit xaadim yónnee ci moom ñu goreel ko ña nga Daaru Salaam Sidi Anta ak Afi Anta ak Mbàkke Anta Anta Njaay kan Ibrahima Wañang sëriñ Mbàkke Maaram sëriñu réew mi Omar Mbacke nogay kan la ni wooyee yaayam kan la rek ma kan des sa dama ni lii TV mën na koo jël rajo bu ne mën na koo jël télé bu ne mën na koo jël ndax ku makk tere ji sa yaaya tuur sa ñeex dama ni ñun jeeg ji na mbind mi leer ndax leetarum nday doom a koy jàng na mbind mi leer ay da góoraa ngi nii moom lan bokkal kër gi yaayi nag kinte jël ngan gi ci loxoom muy Moussa Ngom mii gayteeg gayaan ambarak mbaar sombel coro yow seetaanoo sarak xeexoo sarak ba mu la wooloo jox la bis bi rafet na Moussa dara màkkiwul nogoy sa yaay ngi toog sa yaay sa bàjjan kan dareeg Alassane ma kan ma des sa njóob sa yaay ngi toog sa maam lan ko duppee yàqul kër gi ñëw na fekk na koy ci kër gi ak baax mu ànd moom ci baax ànd ak moom ci liggéey ànd moom ci waaru Seex Anta wa usrati ajubul falala mashku qattu kalala bay na bi kawlaxa bay na bi kawlaxa maratan bi bari sadarin ba siqina musa يأتيك يوما ثم يوما تجولان بغائرة أبقي هناك جمالا لعبد الملك القرم قد جئت موئدا وما لندن أبقى فعبقى يا بيروت عن حلشين بالشرق قادما رسول إلى العرش وهو تعالى كراشي بها قلبت أعظم وادتي هم نصر دين النبي فعالا رسول الله نبي الله رسول الله نبي الله رسول الله مراد الله وسر الله ونور الله رسول الله حبيب الله رسول الله شفيع الله رسول الله نبي الله رسول الله نجي الله رسول الله مراد الله وسر الله ونور الله رسول الله حبيب الله رسول الله شفيع الله رسول الله نبي الله رسول الله نجي الله رسول الله مراد الله وسر الله ونور الله رسول الله بهجتنا رسول الله زهرتنا رسول الله زينتنا رسول الله أسوتنا رسول الله قدوتنا إلى الرحمن خالقنا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 منحت يا دارمي نيد رفيع أباد ولا تواجهني إقرار يا الله لي خدت في كل شيء إن نفسي كرامنا يا نافها نسم الله إيمان يا الله نادى يا نار كل لسافيا أبدا كفيتني سلما أشائيا نادى يا نور كل لسافيا أبدا كفيتني سلما أشائيا